gouvernement muy alternance suffit, fi am yëpp. daf ci jouer des rôles capital des grands rôles mënoon taxaw le poids électoral bi mu am jël troisième monétiser ko mune day continuer li nga xamné ni projet pour muy le changement muy l'alternance jàppale ki nga xamné mom mo 2 deuxième sans condition. Mhm. mu def ko ak le président Wade. def ko avec le président Macky Sall. Mhm ba qui ci position boobu la parti bi nekk. pourquoi parce que parce que waxam day Mengo jëfam te mu formé ño xamné non lañuy doxé mhm. yag nañu wax nak né magla nañu organiser congrès ngén dem mais li dalon président Macky Sall ak les partenaires du Sénégal ci mom moñu dal. muy dal moko dal ci ñun. bi mu taxawé élection législative yi njëkk am bi ñuy créer la liste président Macky Sall dañ ko jébbal liste bi gisul ci turu président Moustapha Niass mu gis ci turu le secretaire général des cadre de l'AFP d'alors mmh. président Amadou Mahtar Mbow ne ko président Niass mënuñu bëgg nga jiite lii ba pare te gisuñ sa tur mu ne ko noonu nañ bàyyi xale yi dem ñu gunge leen ñu ne ko mukk foog mu bokk ci guddi gila la yi dem utal ko ay dossier am extrême ak yooyu noonu fële ca Nioro Kër ma jëbel Kër Maam Tafa Alassane boole ko ci liste boobu mu jiite ko nekk tête de liste gagné élection législative yi nekk président assemblée nationale pendant dix ans ba léegi assemblée ñu ngi koy jooy. diko ko gërëm député yi boo fa demee ak mbaaxam ak personnel bi nekk foofu ndax changement yi. booy wax booy wax ci président duñ fi jógee. léegi mu pare loolu. mu pare congrès yi. def message d'adieu ne day mhm. bàyyi président Macky Sall et les partenaires du Sénégal ne non kii du nit bu ñuy bàyyi muy toog këram. parce que il peut servir non seulement le pays. Mhm. mais le continent. ñu def ko au représentant du président de la République malgré son âge gis ne lépp lu ñuy def luy indi dialogue. Lui, indi tabax lu baax. Mhm. ba tout récemment le président Diomaye M'a donné auto oto. ak motard pour inviter ko dialogue bi nga dialogue national de la justice. Mhm. mu remettre la voiture le motard donc c'est pour vous dire que président Niass ni mi bëgg a état bi ne ko non non lañu yag a wax ëpp na 10 ans. Mhm. ne nañu organiser wu def congrès ñun ñu naan ko maintenant la dernière fois bi ñu demee suñu SPE secrétariat exécutif il nous a carrément dit que fu mu nekk nii foog ndaw yi jóg am naa yaakaar ndaw yi formé am ñu ma ci essayé ñu nekk ministre ñu ma ci ñu nekk député dans des directions am des conseils municipaux et ndaw yooyu waxuma la doxal parti mais mun nañ doxal réew ñu ne ko ci benn condition lañ la koy ñaan. Mhm. mooy da ngay continuer di ñu gunge mun nañu tànk moom mu ngi dundu en 1993 le Jeune Afrique titré woon Moustapha Niass un soldat au service de son peuple Moussa Moustapha Niass laa mun nañu moo fi nekk dara changé wu ci. congrès boobu mhm. incha allah ñu ngi commencé di ci liggéey di mhm. def benn direction collégiale boo xam ne ay ndaw ñoo koy séq pourquoi parce que dañu bëgg teg loo xam ne nii mom toujours dañ koy bëgg diko ko gis mu naan ñu gauche droite ci luy doxal. mais est-ce que mën nañ am délai ban mois lañ koy xaaré ndax on peut l'attendre au cours de l'année 2024 pour tenir congrès wa xam nga bo gisee organisation yi ngay gis toujours du am ben impact moy lo xam dañ ko parax paraxé mais Moustapha Niasse ku ko xam-xam ko ci méthode. Uh-huh. ak organisation. donc ñun on est en train de s'organiser. Uh-huh. la jeunesse des partis, hein, les femmes des partis. Pourquoi Parce qu'il a toujours dit que le parti, c'est le parti de l'espoir, mhm. c'est le parti de la jeunesse, c'est le parti des femmes. Donc, nous sommes organisés pour cette direction collégiale. Nous okay. savons que nous séq mbir mi mhm. du ko defar Nous nit mhm. une direction une équipe une équipe bien formée une équipe a am vision une équipe qui a... Les lu ñuy def dañ koy comme li ñu am habitude di def dans le parti. Mhm. mooy waxtaanee ko d'abord ba lañ koy jëfee. Euh, on va finir par cette question réellement cette mutinerie qui s'est passée au niveau du camp pénal hein, c'est l'actualité on va finir avec ça euh, mutinerie bi gis ay images sax yoo sur les réseaux sociaux.